ñu ne téere bi mooy téere bi yàlla bu mu wàccee ci jaamam yàlla min bayni yedey wala min xalfi tanzilun min hakimin hamid mu ne nañ ko daan durusee da ko jàng da ko mokkal da xam tafsir ba bal tey loolu li mu ngi woy yàlla dogal na seen waalidu daan ko def ba bu àjjuma jotaan ñëpp fañ fee dajee si benn nisir képp la daan tafsir waaye nisir ba du ca ba dara dara du ko ca ba mboolem taawil mu ne yi nga xam ne moom la mu fasiroon yi def tafsiree ko téere lépp sëriñ bi foog a mokkaloon xamut bii xamut bële su waxaan ba pare bu amee sikk bu amee sikk ci kaw waxi keneen du wax ne fa ko fay wax ne mën a laa jomoon nangam laaw nu ne noonu la daan wax waaye du sikk waxi kenn yàlla dogal na ñal na yàlla musal bakkan kile it ko yàlla musal musal bakkanam nam ko sëriñ bi daan defee mu ko koy defee yàlla nag day fay du fayit nag ku ko defalu dara dana maye nag waaye fay ki ko defal la koy def yéen nag bu ngeen defay ki leen defal ngeen defay ku leen defalu dara du ko fay dara mu ne kile yàlla ko fayee Mawlana Seydi El Hadji Omar yal na baax yal na barke yal na mu ne liñ fi jàngagum ren koor gi la ko dalee ca ba njëkke jàng waalamu anna ma xanimtum min cheyin mu ne loolu moom duguñ ci ñun ndax amuñ xaniima waaye am na lu ñoo séddale la ñooy séddale nañ ci jakkee sal ba sal xurba am ba pare ñu doog jox miskin wa aatu xaqahu wa aati xaqahu sal xurba mu ne soo de joxe xaq ji ngay joxe joxal sa bokk gën a jege boo ca paree doo ko jox miskin mu ne loolu la njëkk a jàng gannaaw ko ñu jàng baraatun min allahi wa rasuli la ko dalee ca bopp bara ba ci yaa ayyuha alladina amanu inna kasiran min al ahbaari wa ruhbaan musrikiina rek lay wax yàlla dogal na nag ñun duxuñ musrik kon loola ñun bokkuñ ca waaye la ko dalee ca yaay yooli si naa woonoo ji ba ca inama sabilu ji naafiq rek lay naafiq nag julit fa doo ba tey naafiq nga ba tey naafiq nga ne dëkk bii ki ko sanc sancut ko ndeg lenn lu dul jaamu yàlla wax na ne ba mooy bàyyi ko Medina sànce Pire dafi jaamu yàlla dafi liggéey moo taxoon mu dikki waaye dëkkuwaay Medina la ko defoon yàlla soppi def dëkkuwaay Pire kon nit warut fee dëkk de naafeq te naafeq ci dëkk bi mu ne du wax ne nag diw naafeq la du ko wax mukk mu ne loolu de sañu ko duxut ab yoneen waaye ñi nekk naafeq am nañ ne naafeq lañ nañ ba naafeq mu ne koo xam ne mën ngay fanaan ci dëkk bi xend fi te doo xoor te mat mu kalaf nga xam kilifa mu de ko gis naa peq nga yow mooma ñàkk koy def sa kilifa gala ca seetaan te waxut te naa fekk la mu ne te loolu am na mu ne te loolu du ko wax nag kenn xamut it nag koo ko waxal du waxit nag koo ko wax mu ne te loolu am na de mu ne ñuy bàyyi koo file da dem ba ñooro da jël sàngara da ko naan dëkk Daaru Salaam gendarme yi da leen gis xam ne ñi ne Daaru Salaam lañ dëkk mu ne ñooñu le moom mi le xam na leen du ko wax nag mu ne du ko wax de waaye xam na leen kon liñ wax fi la yëpp ñu jàng ko ci naafeq ñu da ko dégg kon alquran loolu doon jëriñ jëriñu toon ñu da jàng rek nga dégg sa nopp duhut samaawo na leen kësib duhut duhut ay léeb rek yu ñoo léeb nga da dem li ñoo wax lépp dëgg la ku ko jikkoo fañ ñiñ wax ne fañ jëm ña ko jikkoo woon foofu foofa ngaa jëm foofa ngaa jëm de xamut feneen foo de jëm de yàlla wax naafiq boon ca jamono rasulullahi ak ba tey bii ñooyam képp naafiq naafiq rek la nañ ba mbiram naafiq ba ca def mooy allazina yalmisuuna mutawiina min almuminin mu ne kaame alalam da joxe ndeg yàlla ñu ne ko fay fa ngay propagande moo tax nga de joxe mu ne loolu la yalmisuuna mutawwi'iina minal mu'miniin mu ne boo de joxe da joxe ndeg yàlla loo cay propagande kii yàlla ne ci xolam bi mu bëgg yàlla mu xoolu ko moom xalalam bi da ko joxe ndeg yàlla nit da wax ne ki la li mooy def propagande la boobu kooku la da ko dégg mu ne moom propagande kenn kenn kenn propagande ko kenn propagande ko xuutut ci kenn kenn ak koo mën a dox kem luy ñuul ci we ku dut yàlla soxlaalu kenn dara yàlla dong la soxlaal su ko ñëpp bowoon sànni ko ni njuur la toj liñ sànni fa mu jëm moom dana fa jëm te kenn du ca mën dara mu ne loolu la bëgg ñu xam joxe wut dara lu may dégg yàlla tax mu da ko joxe lépp lu mu xam dana ko joxe te du ca seeti nag bu koy joxe waxe kenn du tey bu dee joxe du ca xaajale kenn mu ne li mooy wax lépp laay bee ko dikkee yi alladina yalmisuuna mutawiana min almuminin fi sadaqaati mu ne loolu waxut ko de alquran na ko wax waaye mu ngi am de te ba ba tey mu ngi am. nee néeg bii ñu tabax ko mu ne yëng ni la ci dëkk bi xaat na si yëpp da waxtaaram nga dëkk ci dëkk bi ne te doo dugg ci néeg bi ah. mu ne loolu la ka pexe yaa di moo koy def waaye ku cay dugg da nga pexe loolu la amul benn weer nga yàlla kese moo tax ñu def ko fi nga ne yow doo dugg ci néeg bi le la tax doo ci dugg benn bi mooy moom laal ñu fi nekk xataa jotlikat bi laal na ko. mu ne ñu toog fii ci minbar bi. juma. buñ noddee nodd ga jàkk ga. balaa xatib bi di ñëw. lawala fa lawala. waaw waaw mu ne boobu la ñëw bind de. kii bi waaw <laughs> dégg naa waaw faa di yéex a dikk waaw mu ne lawala fa lawala de kañ njëkk a dikk gën a dijjale. mu ne su noddukat bi waxee allah. bunt bu ne malaaka ngi ci taxaw xame carnet ku dugg mu bind mu ne bu fekkee xati bi yegsi na ne asalaamaaleykum yegg ci ko min bar bi malaaka yi ñoom leem nañ seeni carnet sa ñetti ñoo bind fa ñooy toog de dégloo tagg ki xati bi tagg yi moo tagg yàlla ak digal li muy digal jullit ñi dootut bind xanaa kon ka ba xati bi yéeg doo bokk ci liste ba kenn du la bind kenn du la bind. am na ñoo xam ne <laughs> na am na ñoo xam ne ci finition bu la ñuy ñëw daanaka daal ba ñuy toog bu ñuy wax yaxfiru laahu naa wa na benn.